waaw. fi mu am nañ combat. waaw man rek amagul combat man jàmbaar ji. Hmm. waaw. fan nga toll. ñu ngi ci affaire yi ñu ngi ànd bolot ñu ngi waaj komba yëpp. Koli Faye Youssou Mama Lamine ama booy Abou Ndiass numéro 2 booy bëri nañ daal Fallou ama fii tamit booy am nañ combat ama di ñaanal ñëpp ndam ñu koy waaj. man nag dinaa bëri incha allah balaa saison bi di tëj ci kattanu yàlla. mais dama doon dégg sa combat. yaa Tapha Mbeur. waaw. fu waaw man xam nga dégg rek laa man dañ may woo contacter moom mais dañ ma contacter rek xam nga maa ngi toog di xaar ak ñeneen ñu dul moom. pare nga pour bëreeg Tapha Mbeur. pare naa fi kenn. Tapha Mbeur dafa duggoon dafa duggoon jaamu gën. amul ko def. Mm. nga ne balaa mu fay génn. yaa moom faw ngeen laale. waaw man li may wax rek man làmb mooy sama métier ma fi kenn ku dul Tapha Mbeur ak Tapha Mbeur ku si mën a wax ak samay mbokk boo paree pour pour ma bëre pare naa parce que gars yi sonal nañ ma trop ndax ah, du si man mënu ma si dara chaque jour gars yi ma sonal ñëpp am nañ ko combat li tax mais mënu ma si dara yàlla mooy dogal mais bëre laa bëgg moom laay def ñu ngi dox nag xëy na dafa sotteegul mais li ma leen mën a wax. mooy bu dee damay sax dugg ci journée jàmm dama koy def ndax dinaa bëre ndax dama ko bëgg. doon daal kon su ma déggee wax ji mooy bëgg bëre sa wàllu bopp. mais dama bëgg a bëre samay supporters bëggaat ma bëre xam nga ba tax na damay sa ruus ak génn ndax lan fu combat bi toll fu combat bi toll dañ may saroon ngir yàlla combat bi taxawul man leen mais ñu ngi dox mais xëy na leen mu taxaw xam man nag sama combat yombul waaw parce que damay entraînement caaxaanu ma dem.